docteur Famara sànne ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi nuyu maa ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yi. jërëjëf koor gi. Uh-huh. ñu lay ndokkeel tamit ci kor gi ngay docteur en sciences politiques di joxe tamit tey cours maanaam di jàngale uh, wàllub relation internationale ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yow yaay tamit uh, jaraaf bu commune bu Bona ak yow dañuy waxtaanee kon lu bëri lu jëm ci actualité internationale nga xamante ne li ko lëmbe bokk na ci faatuk démb kii di njiitu réew mu Tchad moom Idriss it Itno lu toll ci fanweeri at la def ci bopp réew mi gannaaw coup d'état ba mu def jëmale ko ci Habré uh, mandaam bu mujj nga xamante ne gagné na ko sax euh, ci fan yi wees te kon résultat provisoire yi fësal ko lan nga jàpp tey ci président maréchal bi. oui merci beaucoup euh, ma maa ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yi et comme ni nga ko waxee rek euh, ñëpp xam nañu depuis démb am nañu dëj boo xam ne vraiment euh, une grande personnalité personnalité bu rëy ci Afrique bi. au euh, regard lu mu def yëpp ci euh, dans ci dëkkam mais également ki sous-région euh, Afrique Afrique sahélienne mooy Idriss Déby président boo xam ne xarit France la pour français yi mais également boo jëlee ci Afrique bi ñeneen am na ñoo xam ne dañu ko dañu ne dictateur la boo boo xam ne Euh, lu lépp lu mu def euh, lu bëri lu mu def euh, presque àndul ak démocratie et donc loolu ci ñaari qualificatif la ñu mën a retenir parce que xarit à France parce que France mun na compter ci Idriss Déby pour mun a consolider ses relations ci Afrique bi mais également ci yeneen africains yi Idriss Déby dañ ko jàpp comme dictateur la Euh, ci xibaar yu jëm ci anam yi nga xamante ne moom la faatoo ñu ngay xam ne ni kon euh, ay gaañu gaañu mu laale euh, ci xare gi moom moo ko waral ndax moom lu tax mënuloon yam rek ci statut njiitu réewam waaye mu nekk en même temps chef de guerre. waaw Idriss Déby comme presque. Euh, situation boobu mun na impressionner ñu bëri mun na euh, euh, ils peuvent se poser des question parce que mus pour président boo xam ne day jël am ganaay di dem ci front bi contre ses adversaires loolu exception la ci Afrique bi quoi mais comme ni ñu ko xamee Idriss Déby guerrier la il est né guerrier il est mort guerrier kenn c'est pas du la première fois muy def loolu donc euh, c'est pas une surprise pour ñu bari c'est pas une surprise moom euh, c'est quelqu'un qui a qui s'est battu pour euh, arriver au pouvoir donc ci ci loolu la nekk bu affaire bi tàngee rek de day jël ses armes et mu dem au gannaaw faatuwam ñu xam le ni kon dañuy samp ab conseil militaire bi nga xamante ne kenn ci ay doomam moo ko jiite loolu du li constitution bi waajal muy charte ndeyub réew ma ndax lii mën nañ ko kon méngale ab ab coup d'état militaire. waaw loolu coup d'état la coup d'état la parce que charte fondamentale bu Tchad dafa ne euh, président en cas d'absence d'empêchement ou de décès du président. Euh, président assemblée nationale moo war a jël euh, les rênes du pouvoir donc euh, ñoom bu ñu remettre loolu en cause encore ñu dem jox ko doomam mun nañu wax ne affaire bi dañ ko préparer de longue date. dañ ko préparer peut-être circonstance décès bi la ñu xamul mais relève bi la relève l'alternance dañ ko préparer loolu moo tax peut-être que doomam ñu jokk ay pouvoir yi de mu àgg ay grade bu général mmh. léegi nag ci conseil euh, de transition boobe diirub euh, daanaka lu jege ñaari at ndax fukki yeer ak juróom-ñett ndax loolu bëriwul ngir amal ab transition laata élection. oui transition bu comme euh, presque yàgg nañu gis loolu ci président africain yi. Euh, généralement bu amee coup d'état dañu ne ils sont là pour un an deux ans mais euh, date yooyu dix-huit mois yooyu da leen permettre ñu préparer ñu xam ne bu dee ñoom dinañu retirer jox ko keneen société civile bi mais société civile yi foofu mu nekk seen seen partenaire la koo xam ne du leen topp euh, ou bien ñoom mën nañu préparer seen biir quelqu'un boo xam ne day démissionner ci armée bi mu jël. parti mu jël direction parti politique bu ñuy bu ñuy créer comme ça day nekk les mêmes personnes ñoom ñooy continuer di évoluer di exploiter di def parce que la gouvernance africaine dans dans de situations comme ça nii la mel quoi Euh, gannaaw kon ba mu see ci boppu réew mi moom Idriss Déby ci atum 1990 ci coup d'état bi nga xamante ni def na ko ñu nemmeeku ni ci diirub euh, fukk ak euh, juróom-ñett wala fukk juróom-ñaari at yi mu def muy 17 ans yëpp am na lu toll tamit ci 17 premier ministre maanaam day mel ni at bu nekk mu am premier ministre bu yees loolu ndax ñàkk confiance bi mu am ci ay collaborateurs moo ko waral. non ñàkk démocratie la ñàkk culture démocratie la euh, xam nga Afrique euh, généralement c'est comme ça man presque président yu bëri euh, soit c'est une volonté manifestant du ñu préparer koo xam ne moo ne mooy jël relève bi au sein de son parti donc dañuy nekk di tâtonner di tâtonner kuy dañuy nommer di dégommer nommer di dégommer donc loolu particularité ba comme lu ñu xamoon lu ñu gisoon ci ab Diouf ak euh, ak euh, ak Senghor ak Abdou Diouf ou bien euh, ci ay Ahidjo ak peut-être président Paul Biya tey gis nañu Biya mu ngi foofu trente ans et quelques bàyyul ah mais léegi presque président yi yëpp préparation véritable préparation koo xam ne su ma nekkul fii ou bien su ma defee sama ñaari mandat yi ma bàyyi keneen ñëw donc du ñu préparer kenn dañuy nekk ci bureaucratie eh, ci politique boo xam ne placé seen mbokk yi seen seen ethnie ñi ñi yor euh, les devants de la de de de la scène à telle enseigne que pour ñu bàyyi dañuy ragal donc comme dañuy ragal di bàyyi donc ils préfèrent se maintenir au pouvoir pendant de longues dates. Mmh. gannaaw jàmmarloo yu métti yi ñu nemmeekoon ci njeextulay bis bi ba ñu jàpp ni kon moom Idrissa Déby it no bokkoon na ca taxoon na ba euh, rebelle yi moo yooyu fupp ne woon euh, nangu nañ ni kon dañoo replier am na sax ñi wax ni nopp yoon nañu ngir euh, tàmbaleyaat ay waxtaan faatub Idriss Déby ndax du yokkaat xar mi karaw ndax du gën a yokk rebelle yi fit waaw loolu loolu loolu am na am na aspect négatif quelque part qui le fait que ñoom ñu ne euh, Idriss Déby dafa euh, dafa ça sont des se relève vraiment des blessures bu mu amoon ci xeex contre les rebelles parce que dafa crédibiliser euh, mouvement rebelle boobu ñu bëri boo laaje laajee fact xam ñu front boobu front d'alternance donc ñu bëri xamuñu ko donc concorde boobu aujourd'hui dafa am Euh, une certaine crédibilité au plan international parce que ñoom ñoo ko may crédibilité boobu donc day day day day yóbbu ñoo xam ne dañu doon hésiter parce que adversaire Idriss de la mais dañu doon hésiter di soutenir les le le mouvement tey dinañu am volonté dinañu ne ah kon mouvement bi am na doole ñu soutenir ko et également deuxièmement dafa dafa ko may crédibilité au plan international ñoo xam ne ñi jaay arme njina nganaay yi donc ñi hésité di ko di di di jaay nganaay ci ci mouvement boobu dinañu am volonté di ko alimenter d'abord di ko jox alm donc ceci waa amener dina dina indi instabilité ci sous-région bi quoi donc sous-région lu ñu gisoon ki euh, Libye loolu mun na am loolu moo am aujourd'hui ci Mali donc bu amee encore Tchad alors dañuy ubbi benn boulevard vers l'Afrique du Nord donc instabilité totale ci région Sahara sahélienne rawatina xeex wàllub terroriste gisoon nañu taxawaayu Idriss Déby ci mbir mi ban ëllëg lañ ci mën a xaar ngir Afrique oui xam nga euh, région boobu le Sahara et le le région boo xam ne euh, dafa parsemé ay groupe armé ay groupe ay ay ay ay kuréel yoo xam ne ñoom dañuy jël ay fusil ay ganaay yi di di lutter sen seen xeex boobu dafa am dafa am plusieurs euh, canevas mooy d'un côté dañuy xeex peut-être pour prendre le pouvoir pour contrôler le pouvoir mais de l'autre côté dañuy xeex parce que ils sont dans les réseaux de trafic de euh, trafic d'armes, trafic de, euh, de personnes, d'organes humains, ainsi de suite. Trafic dans l'ensemble, quoi. Donc, euh, euh, sous-région bi day nekk une sous-région complètement déstabilisée et euh, le rôle que euh, rôle boo xam ne Idriss Déby boobu la doon joué ci sous-région bi c'est-à-dire le gendarme de l'Afrique au-delà de après Kadhafi le moom moo presque joué gendarme Afrique bi parce que intervenir na en 2013 contre les djihadistes mu jël volonté de combattre euh, les les djihadistes mais aussi en deux 2014 euh, dem na euh, Centrafrique ci xeex Centrafrique peut-être que armée Tchad dañu dañu retiré après parce que dañu leen accusé yu bëri et 2015 dafa moon Euh, ma ne benn offensive contre Boko Haram euh, gis nañu ah, action armée Tchad moo tax Boko Haram amul doole boobu euh, tey bu Tchad boobu amul bu amul sécurité bu amul bu amee instabilité ci cette région boobu bu ñu amul président boo xam ne am na maanaam am na am na relation bu amul soutien de la France donc il faut savoir que la région l'Afrique risque d'être complètement déstabilisée. Mm. ñu wax nag ci Sénégal ndax coow li jamono ji mooy élection locale yi daanu ko toxalam de kañ lay doon euh, ñu nemmeeku ci ñàkk déggoo dëgg diggante majorité ak opposition bi nga xamante ne ci nga bokk waa PDS lan moo ci seen taxawaay. non ñun wax na suñ position leer na première position bi bu ñuy waxal mooy fichier bi na nekk fichier boo xam ne fichier bu leer la. gis nañu parce que fichier bi dafa entaché d'irrégularité donc irrégularité yooyu ay fausse pièce d'identité ay fausse identité yoo xam ne yu nekk ci biir il faut ñu am benn commission commission boo xam ne moom mooy liggéey mu am mu rassurer tout le monde mu rassurer tous les partis politiques mais euh, sous le contrôle des observateurs internationaux euh, euh internationaux ñoo xam ne ñoo ñoo war a accompagner que ça soit les Nations Unies ou bien l'Union européenne la CEDEAO ou bien l'Union africaine donc ñoom ñëpp ñëpp d'accord opposition ak observateur yi ak pouvoir bi ñu d'accord ne fichier bi leer na donc loolu moo tax moo c'est ce qui peut amener ñu mun a organiser élection bu leer parce que gis nañu ñu ah, ah, Sénégal depuis quelque temps dafa am difficulté di di planifier un calendrier normal pour les élections particulièrement ci surtout ci élection euh, locales yi. Mmh. Euh, yow en tant que maire ndax jàpp na nga ni euh, sa toogaay foofu daggan na ba deux mille vingt deux. non toogaay boobu c'est pas normal parce que toogaay bi euh, euh, mandat boo xam ne à chaque fois bu am deux ans trois ans bu yokku foofu je pense que loolu amul il faut mu am planification boo xam ne bu baax. Euh, mais euh, parfois aussi day de empêcher maire yi di def seen liggéey normalement parce que dans boo nekkee ci euh, planification et que calendrier mu bouleversé complètement donc da ngay nekk ci situation boo xam ne c'est pour ñeneen yi da bu ñuy commencer projet bi projet bi di ñu ko jeexal donc mun naa yóbbu maire mu remettre en cause euh, les euh, les l'édification qui sera l'exécution d'un projet donc euh, je pense que en tant que maire je respect calendrier électoral moom mun a permettre ñëpp liggéey sur un programme bien déterminé et pour pouvoir avoir un résultat boo xam ne day convaincre population suba ñu renouveler sa mandat ou bien ñu bañ a renouveler sa mandat jërëjëf kon Famara Sané merci beaucoup merci